ci mbirum kon ba Senghor ak la xew ca këram nga fële ca euh, cité euh, biag yi euh, jot nañu ko ngir mu indi ci ay leeral monsieur Farba maa ngi lay nuyu. mu mel ni gendarmerie tey jii xëyee na la foofu ñu ni kon danga nga yoreel soxna si la luyeel kër gi ñeenti weer ba indi tey jii bi situation ñu war ci génne kon say bagage yow yan leeral nga ci indi ndax mbir mi noonu la demee wala. mbir mi demeewul noonu. loolu yëpp amul dara loo xam ne am na ci mbir mi kay mbirum politique moo ko lal mbirum xe euh, waasoo ak mbirum xe ndax ki ma ko séqal mi ngi tudd Awa Abdoul Sall euh, mbokk ñoom Macky Sall la tukkulóor la ñu ki nga xam ne tam mooy huissier bi mi ngi tudd maître Owens Momar Owens Ndiaye moom itam tukkulóor la te daf ma tëkku woon sax ndax bi nga xamee ne dem nañ ba ci weeru mois de ci weeru mois de février mois de février euh, huissier bi dafa yónnee clerc mu ñëw sama kër mu ne ma da nga yoreel ci ñaari we ñaari weer yi location léegi nag weer bi ñu nekk dama ko boole ak weer bi ñëw muy quatre mois yoo xam ne da ko war a fay fekk moom fa sax sax sama doom woo clerc bi fay clerc bi ñetti weer fay clerc bi également ay droit dem ba benn bis bi ñëw ne ma dañ maa jox benn benn avenir mooy da ñëw dañuy juger affaire bi ma ne ko tax ñu koy juger mu ne waxal ak ki nga xam ne mooy sama patron mu paas ma Owens Owens ne ma may yow Farba Owens huissier bi yow pourquoi ñëwoo seet ma ma ne ko mënu seet parce xaw ma la man dama yaakaaroon ne kii moom mooy huissier bi parce que moom moo ñëw seet si ma mu ne ma non non affaire bi damay dem ba jusqu'au bout ma ne ko kaay sa xaalis mu ne ma jëluma xaalis bi le mois bi des mu ne ma jëluma ko ma jël wari wari ñaari weer non seulement weer bu ak bi ci topp ma wari ko ki nga xam ne mooy Awa Abdoul Sall mooy ki nga xam ne moom kër gi nekk Sandaga mu jël xaalisam pour man l'affaire était close parce que weer bi ci topp sax pour mois de mai bi doom ji ñëw na fi doom ji yi man maa maa jox mu jox ma facture man jeexaloon naa affaire mais comme affaire Karim Wade bi ñu ngi ñëw fan yi passé ci nga xam ne moom mooy freeru Awa Abdoul Sall mi moom kër gi ñu koy wax Tidiane Diagne te mu ne mu ngi liggéeyee ci nga xam ne mooy banque étrangère mu ne ma léegi Farba dama lay woo pour nga fay weer bi ma ne ko c'est alors ci tënk daal mën nañ jàpp ni xëy na euh, parce que waxtu yi mi ngi ñuy dàpp lii lépp mbiru politique la waaye du coowal xaalis. boo ci tënk mooy yore lu ma ko dara parce que tey jii nee na ma génnal jël sa bagage nga dem ma dem parce que am nga deux mois d'avance fii ci biir kër gi am nga deux mois d'avance donc maa ngi lay topp deux mois d'avance soxlawuma xaalis donc amul benn xaalis bu may réclamer. ok kon loolu la Macky Sall ci boppam moom la ñuy jàppale. parce que ay tukulóor lañ. waa kay euh, ñu lay gërëm monsieur Senghor ni ko waxee waxtu wi moo ñu dàpp leeral yi euh, kon euh, agsi na du kon mbiri koppar moom moo leen boole li nga waroon ci say kàddu li waroon seen diggu kon def nga ko dinañu ci desiwaat incha allah ci suñu xibaaru ngoon yi.